dal leen ak jàmm ñu dikk ak yéen ci li gën a fës ci yéenikaay libération yéenikaay la ñu koy doore mi xëy na kay jafe-jafe yi nga xam te ni am na ci kër googee di LONASE mu ne nag ka nga xam te moom moo fa nekkoon directeur général di docteur Cheikh Dieng moom nag daal dina génn wax ak ñi nga xam te ñoom ñoo di taskatu xabaare ca la nga xam te moom la ñu koy jiiñ ñu doxalin gu sellul moom la def ci bopp kër googee di ONAS ba tax nag ñu jëlee ko fa ci lu matul ñetti weer ca ba ñu ko tabbee ak léegi moom nag daal dina taqal ki nga xam te moom moo nekkoon kilifaam di docteur Cheikh Tidiane Dieng mu ne nag lépp luy nji njaagate moom docteur Cheikh Tidiane Dièye mooy njaag ndax nag bu fekkente ne ab mafia am na ca moom taq na ca ba ci rëpp noonee ko daal di xam ne ci biir journal bi libération yéeni kaay ne ñuy tamit li nga xam te moo ñeel convention boobu cadeau bi ko mu ne gannaaw la nga xam te nag journal bi xam la ne ko mooy niki ñeenti fan ci weeru novembre 2020 la ARMP kër gi xam te mooy saytu lépp lu jëm ci wàllu marché public yi daal di xam ne rek ne noonee nga xam te ni na la Canal Plus di doxale ci biir réewum Sénégal jaar yoon te nañuy liggéey tamit nguurug Sénégal àndu ca waaye tamit mu daal di cay yokk ni rek am na benn ab exploitation bu service de distribution boo xam te ñu ñu ngi koy doxal te Sénéra nag de la communication redevance annuelle liée au montant du chiffre d'affaires ñu moom moo di Canal Plus boo fekkente mu ngi doon gagné juróomi milliards jàpp fukki milliards ci weer wi ki nga xam te moo di nguurug Sénégal luy tolloog ñaar fukki millions képp la ñu ko daan jox ci suñuy koppar noonee ko daal di xam ne journal bi tamit dikkaat ci luubal gi nga xamante njort nañ am na ci lu ñeel wàllum aide à la presse nag ndax ñu ne lu jege benn milliard ci suñuy koppar moom la ñu jël daal di koy dugal foo xam te ni kenn mënula wax fii la wala fële la ba tax na ki nga xam te moom moo di jëwriñ ji di Alioune Sall nee na kër gi nga xam te moom moo di IG daal sàkku nañu ci moom ngir nag mu daal defub gëstu ngir ñu xam koppar yooyu ana fan lañ ko dugalee jëwriñ jooju di Alioune Sall tamit ci biir la Soleil yéenikaay mu ngay xam ne rek ni daal di nañuy taxawal benn plateforme de recensement ngir nag xam ñan ñoo di ay médias yu nekk ci biir réewum Sénégal ñan ñoo jaar ak ñan ñoo jaarul yoon waaye tamit ngir gën nga xam te moom moo di seenub liggéey ak seen jokkalante ak nguur gi Alioune Sall mi nga xam te mooy jëruñ ji yor lu jëm ci wàllum communication ak télécommunication waaye tamit wàllum numérique mu ne nag nguurug Sénégal amul benn jafe-jafe boo xam te am na ko ak li nga xam te moom moo di presse lu ñeel wàllum dette fiscale moom itamit mu daal di ci yokku ni entreprise de presse privée yi ñoom ñoo nekk ca bopp wuute ak la nga xam te yenn politique yi nga waxoon nañ ko ci biir Sénégal ni nga xam te ñoom ñoo di entreprise publique yi lu ci demee ni RTS Le Soleil APS ñoom ñooy ñi nga xam te ñoo ëppalee bor boo xamante amoon nañ ko nguurug Sénégal à la presse ñu ne nag des disparités notées l'IGE activé la nga xam te ni nguur gi daan na ko jagleel yenn këru tasukaay xabaar yi da leen ko dimbalee at mu nekk nag am na ci ay koppar yoo xamante ni daanaka dafa nax saay ndax kenn xamul yenn groupe de presse la ñu ko jox ndax nag xaalis bu bëri bari la te tamit la nga xam te ni fësal nañ ko démb gannaaw ba nga xam te moom moom di jëwriñ ji Alioune Sall doon na jàkkaarloog woy taskatu xabaar yi mooy lu jege ab milliard daal kenn xamul fan la ko nguur ga woon dugal ndax nag ñu ni jàpp rek ne am na kër yuñ ko jox waaye waxuñu yenn kër la waxuñu tamit naka lañ ko daanaka ñaata nga am journal bi xëy na dikkaat ci mbir moom la waaye tamit daal dem fa nga xam moom moo di ca assemblée nationale mu ne nag li nga xam moom moo di ilimaani jëruñ ji Ousmane Sonko ngir mu daal def déclaration de politique générale am Soleil yéenekaay yi dikkaat na ci ci na mu gën a waaye tamit mu daal xamle rek ni ki nga xam moom moo di Bassirou Kébé di directeur général bu SNHLM na nga xamle na ko nag mooy la bëgg ci lépp lu jëm ci wàllum waaye ñu fexe nag ba mu gën a méngoo ak li nga xam te moom mooy nekkinu askanu Sénégal rawati nag di dimbali ñi nga xam te ni seen loxo jotul seen gannaaw journal Le Soleil dikkaat na ci waaye tamit mu ne ki nga xam te moom moo di ilimaani jëwriñ ji Ousmane Sonko daal dinay installé li nga xam te nag moom mooy comité de commémoration bu juróom ñett fukkeelu atu jéey ji xam te ne nasaraan bi defoon na ko ay soldaar soo xam te dañu demoon xeexal ko ñëw di laaj seenu ndàmpaay ñu fekk leen ca kancaaro daal di leen buum faat leen ñoom ñëpp loole nag danañu ko màggal juróom ñett fukkeelu ci biir réewum Sénégal Soleil dikkaat na ci source a nañu nag li nga xam te moo ñër modification bu règlement intérieur bu assemblée nationale la loi organique numéro 10 par la quasi totalité des députés ñi nga xam te ñoom ñoo di député ñoom ñëpp àndandoo nañu daal yeesalaat li nga xam te moom moo nekk règlement intérieur boobu assemblée nationale coow li nga xam te juróon na ko fi ndax nag ki nga xam te moom moo di ilimaani jëruñ ji daf nga xam te journal bi tamit ne ñu ministre de la communication parle de plus de huit cent millions présumés portés disparus dans le cadre de la répartition de l'aide à la presse l'IGE activé lu mot juróom-ñetti téeméeri millions ci suñuy koppar nag moom moo daal di nax saay loolee amul foo xamante ni mënees na dut baraam ne fa la ko nguur ga woon dugal jàpp nañ daal ay këru tasukaay xabaar la ñu ko jagleel dimbalee leen ko waaye waxuñu yan lañ waxuñu tamit fan la ñu tamit ku ci nekk ñaata la ñu la jox ba tax nag ñu sàkku ci kër gi nga xam te moom moo di IG mu daal di defub ci mbir moomu la ngir ñu xam nga xam te moom moo nekk ci mbir moomule waaye tamit mu ne parfum de scandale du siècle 45 millions de francs CFA alloués à l'aide à la presse soit millions de francs CFA n'ont pas été injectés dans les entreprises de presse mais nous avons commandité un audit de l'IGE pour tirer cette affaire au clair loolee di kàddu yi nga xam moom moom la kii di Alioune Sall daal di yëkkati démb ba muy janoog way taskatu xabaar yi nee na ñoom xamuñu fan jëriñ docteur Cheikh Dieng moom itamit nekkoon directeur général bu ONAS dikkaat na ci jafe-jafe yi nga xam ti moom moo doon digganteem ak ministère de tutelle am waaye tamit ba ñu dàq ko ci kër googu nga xam moom moo di ONAS moom nag daal dina taqal ki nga xam moom moo di docteur Cheikh Tidiane Dieng mi nga xam moom mooy ministre bi nga xam moom moo nekkoon kilifa mu ne nag la nga xam moom moo di limogeage daal mu ne c'est systématiquement di cancer ñoom la ñu sàkku ngir nag ñu daal di woon liggéey ak kër googe nga xam ne moo di ONAS te kii di docteur Cheikh Tidiane Dièye moo dem négocier ak ñoom directement te lu ne mel warul woon ki nga xam te moom moo di ministre bi di Cheikh Tidiane Dièye dafa jógoon ngir daal koy humilier moom docteur Cheikh Dieng noonee la ko xam ne ci biir journal bi di Source A gannaaw ba nga xam te ni moom woy na doon janoo ak woy taskatu xabaar yi l'évidence quotidien dikkaat la mu ne motif de son limogeage la tête de l'ONAS Cheikh Dieng déballe tout et enfonce Cheikh Tidiane Dièye waaye tamit jafe-jafe joo xam ti nemmeeku nañ ko ci géneenu këram mooy port autonome boobu Dakar gestion décriée le directeur général du port en trouble fi mu toll ci ay jafe-jafe la nekk ndax nag la nga xam moom moo di syndicat yi dafay jàmmaarloo ak ñoom la nga xam gis nañu ko daal mooy directeur général ba na muy doxeele dara jaaru ci yoon ba tax nag ñoom ñu bëgg ay coppite am ci mbir moomu la assemblée nationale l' évidence quotidienne nee nañu day ngir dem def li nga xam te moom mu nekk déclaration de politique générale ndax nag ñi nga xam ñoom ñoo di député ñoom ñëpp ñoo àndandoo daal di defaraat la nga xam moom moo di charte assemblée nationale boobule ba mu méngoo ak la nga xam te moom moo di yoon amatul benn yoon loo xamante ni kon mënees na ko ko dut baaraam waaye tamit journal bi nañoo reddition du coût de la vie souveraineté ki nga xam te moom moo di njiital Médis la nga xam xam le koy def jamono ji le ngir nag gën a dimbali L'Obs quotidien ne ñooy fédération de football sénégalaise day danañu def reddition de compte boo moytul ndax ki nga xam te moom moo di jëwriñ yor lu jëm ci wàllum tàggat yaram nag mu ngay saako ci nga xam te ñoom ñoo jiite fédération sénégalaise bu football ñu daal di koy defal li nga xam te moom moo di bilan ci at yi nga xam te moom la ñu génn bu ko defee nag mu mën ko jébbal ñi nga xam te ñoom ñoo di ay kilifaam ndax dañ ko koy laaj jamono jële lu ni mel nag mënees na njortu nag dañu bëgg a dem ci li nga xam moom moo ñeel wàllum reddition des comptes ngir xoolaat na nga xam te noonee la waa fédération sénégalaise de football doon doxale ak yi xam te ñu ngi koy dugal ci wàllum football bi fan lay jaar dëggantaan mbokk yi mu nekkoon li gënoon a fës yéenikaay ñu doon leen ko dégtal di leen jox dig daje ëllëg incha allah jërë ngeen jëf